ko jiite ak ci turu nag jëwriñam ji Cheikh Mouhamadoul Bachir bu xam ne moo jëwriñu kër gi maa ngi nuyu nag ñi fi nekk ñëpp sëñ Maam Moor wax na lépp ak Cheikh Mouhamadoul Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi di sama xarit mooy wax na lépp waaye dañu xam ne rek ne euh, maa ngi damay nuyoo di nuyu ki nga xam ne moom moom la moo fi teewal président de la république euh, monsieur le ministre Aly Ngouille di ko wax ni ko màggal gi lañ ci lañ ci lañ ci séntu lépp lépp mel ni mu ni mu waroon ndax sëñ Abdou Ka wax na ko ci CLD beeg ak CDD CRD bi lépp euh, ci sous-préfecture ba ak ak ak ci département bi ak gouvernance lañ ca laajoon lépp lépp yàmb na ñoo xam ne xamuñu koon noonu di sant itam nag sëñ Abdou Badou bi nga xam ne moom moo yore mbirum mbirum communication màggal gi. lim ci dem ci def lépp ak ñim ko seqal ci rajo yi lépp def na ci lañ ci war a def lépp sant nañ ñëpp gërëm nañ lépp di xam le rek ni daal sëñ Fallou moom ne daf daa wax ni euh, ñi mu war dama am pay kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant jullit di jaale nag ni ko sëñ Maamoor waxee lépp kilifa yi fi jógee tàmbalee ko ci njabootu Cheikh Modou Fadal sëñ Abdoul Samad sëñ Afé Mbakke euh, sunu mag yi jógee barki démb rek sëñ Modou Aïssa ak suñ mag yi Cheikh Amadou Tidiane si ak jaale itam waa waa daaka ga ak lii xew barki démb ci ci ci ci fee ci ci boori Fatick di jaale itam sëñ Maodo ture dañ ko ñi ko ñëpp waxee rek noo ngi koy defaat di jaale ñëpp di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëw ko mu xaral leen ci jaanantu si ndax noonu murid kat Cheikh Amadou Fadal am na góor gu ñu wax sëñ Mountakha Kan laajoon na ko ne ko ne ko ndax nun nun nun jullit nun murid yi bu yowmal xayaamee sëñ Tuubaa day nekk ci àjjana yi nekk ci àjjana yi wala di sëñ siñ siñ sëñ Cheikh Modou Fadel ni ko Serigne Touba ma ngay dëkk janal fa daw si ab moom kon nag euh, ñun ñëpp foofee lañ jëm ci daanatu fer daw si maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu président de la république nuyu boo xam dama koy beral sama digganteeg moom di ko wax rek ne ko président Senghor ba ñu ñuy def référendum bii ci Touba ci ci 1963 sëñ sëñ bi daa wax euh, président Senghor ni ko dangaa ñëwoon di wut réew mi ma la waaw waaw waaw jooje bool naa bool naa ko waayu tey ji muy waaw waaw ba ngay wut réew dama laa waxoon waaw waayu tey ji bool naa ko jooje muy waaw waaw président euh, Macky Sall sama xarit la bi mu nee ci fii Touba ci du ñëw Touba ci jafe-jafe dama ko waxoon ne ko waaw waaw tey ji bool na ko joojee muy waaw waaw la ma waxoon bëkki bi tam xam naa ko jàpp naa ko maa ngi ca maa ngi wax nag le ministre Youssou Ndour mu ñëw fii wax ni Euh, sëñ Fallou daana wax naam mu am bu ne du am du am sant naa rajo yëpp nag ci tàmbalee ko ci ministre Youssou Ndour ak ak rajo rajo yi fi daje yëpp su ma limee damay jum waaye rajo privé daal moom seen liñ ci war def ci màggal yëpp def nañu nag doy na monsieur le ministre jotti li la ma waroon wax rajo privé daal moom euh, def nañ li war def lépp waaw euh, di ñaan rek suñ borom nu def ko daje war ko ndëgëni déwén te ñëpp ñu jokk ba yëkku di ñaan tam loolu nga wax ci mbirum nawet bi sëñ boo ngi nii nawet bii ren insha allahu dana teel lool dana barkeel lool ndox mi dana bari lool te te te te te itam day dem ba fa mbar a àgg màgg fa insha allahu taala kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam le ni koo ci xam ne dañoo wax ci loo xam ne dafa jege président nga jóg itam nga jóg dem jóg daanaka amuñ solo li la war wax laa ne war a wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le ministre Youssou nga ne sëñ Fallou bu ne maam doom waxal loolu jërëjëf sëñ Fallou mooy mbéegub murit yi lu wér a wér bur yàlla moo ko def ci xol yee ñun muridu laay galas la nuy sëñ Fallou Mbacké yàllaa ko def muy xaritam bu nee mu am bu nee du am dara du am sëñ Fallou moo sanc ndindi sëñ Fallou def di dindi sëñ Fallou ku réer mu gindi sëñ Fallou mooy Sénégal sëñ Fallou moo sanc ndindi def di dindi